est-ce que bëre ma ak Ama te waaw parce que Gala moo leen boole mook Ama. xam nga dafa am foo xamante ni bu fa làmb tolloo Tapha ni mu def noonu man sikkuma ko ci quoi ci galaa bi c'est normal mu dugg fa. parce que mbër di nga bëreeg koo xamante sax dalay lay leer ne kii làmb booleegu leen mais lay tax nga bëreeg moom da koy bëgg a teel a faxas rek seeti leneen moo tax bi leen bi ñu duggee Gala trois points nag la fa war na génnee mais xam nga lu ñaan jaam ak pexeem yàlla mook dogalam. noonu la demee foofu quoi. ci contre Ama. xam nga dafa daan sos daan guy gi après ñëw ci Ama échec toog après ci lañ ko jox Yékini Junior maa ko yóbbu làmb ja Yékini Junior. yaa ko yóbbu. waaw maa ko ëmboon keroog. Mhm. Ah, comme kan comme kan. am na seen waaw. waaw ñu gis ni euh, kii di mhm. daan na ko deux fois. waaw ñu loolu maanaam deux deux deux. loolu xam nga comme tey làmb Modou Lo bërekat la. Balla Gaye bërekat la Eumeu Sène bërekat la xam nga ñoon doo leen tudde ne ay bërekat lañ mais ku ci nekk la ngay bëree ak la sa moroom bi di bëre bokkul boo xoolee Balla Gaye mënul préparer Eumeu Sène. ndax lan. xam nga ndax lan. Balla gay tey saa yu bëreeg Eumeu seen xeen lay ñëwee comme li ma wax keroog day ñëwee fugg ak maa ko mën dama koy daan ama ñëw ak calcul ak tamit tranquillité bu doy waar liir combat bi te Balla gay du ko liir moo euh, Eumeu Sène day liir Balla gay toujours bàyyi ko combat bi mais bàll Gaye du liir Eumeu Sène toujours moo tax pour mu daan ko du mën a nekk. Balla pour mu daan waaw xam nga Balla pour mu daan Eumeu seen loola moom. Euh, da koy respecté rek xam ne bërekat lay bëreel bañ a ñëw arbitre sifflé mu ne maa mën fuuf parce que mënu ko ki la daan ñaar yoon mënu ko mën xam ne tamit bëre bi mu yor bu ko raw sax boo xoolee ci wax nii rek bu ko bu ko raw sax boo xoolee sax xëy na mu ngi ci Eumeu Sène moo tax lu mu bàyyi rek Eumeu de koy jël. Mhm. le cas waaw Modou boo xoolee mook Balla Gaye bokkuñu parce que Balla moo ëpp Modou laf moo ko sut te bu ñu préparé ñëw Balla mooy ëpp doole parce que euh, Balla moo gën yax ci waxin quoi moo gën yax Modou Lo parce que Balla benn yax la saa yu ñu paree ba pare Modou tamit saa yu bëreeg Balla kon xeen xeen bi ma la wax fale day nekk ci moom day ñëw ne waruma daan waruma daan Balla tamit. fa mu tegoon kii ba rek la koy tegaat dox ci kaw am jàpp jàpp ko daan ko. Hmm. waaw comme li ma la wax rek Modou pour mu daan Balla tamit euh, day xaw a jafe day xaw a jafe parce que ku ci nekk mënoo pare sa moroom même comme Eumeu seen tamit mook Modou Lo tamit loolu dafa nekk foofu. Modou Lo day jafe lool. dafa gëm ne moom mën Modou te mënu ko. te mënu ko. Mhm. Mhm. saa yu bëreek moom loolu lay indi. bi ko Modou njëkkee daan sax revanche boo xoolee li ko Modou Lo daanee mu njëkk sax loolu la parce que moom mbëru contact kat la day contact mais li mu forcé ci bëre bi moo bari te Modou dafa mën a bëre. Eumeu Sène dafa forcé ba jeexal tàkk ba Modou daan ko revanche bi tamit mu ñëw di rectifier loolu. mais fi mu taxaw ci lii ñu Modou la taxaw bi muy bëreek Modou Lo pied la ak pied droite moom Eumeu Sène pied droite la mais bi muy bëreek motloo Lo Modou Lo la teg moom mu teg pied droite mais dafa war tafu ci gauche Modou mais dafa ñëw xaaj ci lii ñu Modou la bëreek Modou moo tax bi mu bi mu dooree droite Modou dafa téye loxo gos bi bi mu dooree droite moom Eumeu Sène bi mu dooree euh, laaw droite Modou Lo def demi flexion bàyyi ba ko ku bu jàll mu kor ko benn coup la ko benn coup la laal mu dem te combat bu noonu rek la mën a dem parce que loolu benn coup rek lay doon waa ji laaw na la def nga demi flexion Modou Lo fekk na boobu armee na taxaw na tànk yi bu baax. waaw. Gris bu neex la parce que jël day am. jël day am day kay. ñoom ñaar bu ñu bëree far force jël day am tamit. xam nga biri Gris Lac de Guiers mbëru géew la mais Gris Bordeaux tamit mbëru géew la Gris wax ma ban mbër moo ko mës a daan ci géew bi ba war ko Gris parce que man Gris dama ko xam dañoo nekk ma xam ko bu baax ma déggee ku naan giri mënul bëre mënul bëre daf may jaaxal kay parce que dama ko xam parce que Gris gëru mbëru géew la dafa mën géew day bëre day xeex. waaw su fekkoon ni avantage ba may waxi mooy mu ñëw ñu nangoo taxaw ñu joué ñoom ñaar ñu nangoo bëre parce que Gris moom day bëre moom Gris moom bëgg bëre bañ bëre moom Gris moom seen seen combat saa yu dina metti ci yow lool. Hmm. ñoom ñëpp mbër yi waaw waaw waaw xam nga euh, tey euh, boo xoolee ñoom ñoo ñëpp dañoo desee bokk lu ñuy bëre. bokkuñu lu ñuy bëre Balla Balla Gaye lu mu jàpp moo ko moom mun na bëre am na fit tamit euh, euh, day attaque moom la mais du liir adversaire mhm. kon ñooñu waaw xam nga bu ma laan ko ci ëpp chance day xaw a naqaree lijjanti bu dee côté Eumeu Sène xam nga ci Modou Lo rek laal na liiru ko dafa liir Bombardier daan ko moom moom Eumeu Sène parce que ni mu bëreeg bombardier noonu rek la war a bëreeg bombardier parce que bombardier ñoom ñoom ñetti mbër yooyu yëpp ku ku ci ñëw ne da ngay jaay bombardier doole doo dem ku ci ñëw ne dangay ngay jaay bombardier fit doo dem ku ci ñëw taxaw ne dangay ngay dooranteeg bombardier doo dem. ba pare dañ ko amee revanche ñoom ñëpp ak euh, bombardier am na ñu ñu gis ni bombardier déwén incha la 45 ans demet. Hmm. est-ce que euh, yow d'accord nga bombardier 45 ans mu ak tamit ni war a mën a joxe Balla Gaye euh, revanche ak ki nga xamante moom mooy Modou Lo Eumeu Sène amal ko revanche est-ce que tey euh, déwén incha allah quarante cinq yi d'accord nga fi loolu bàyyi waaw xam nga CNC comme gars yi ñoo ko fi teg te ñoom ñoom mbër yi ñun ñëpp ñu ngi ciy wax CNC bi nii CNC bi nii mais ñun ñoo ko fi teg comme teg nañ ko fi tamit te lu ñuy lu ñuy lu ñuy lu ñuy waxtaane da ngay dem ci dañuy woo mënaan séeréer yeeg ñëpp ñu taxaw waxtaane ko. ah kon lu ñu def ñoom dañ cee d'accord ak ñoom rek. Hmm? Euh, su fekkoon man la man man man la. Mhm. du ma bàyyi mu dem. kon day kon continuer bëriwaat. Mm, waaw parce que am na fi place bu baax. Hmm? même Baboy fi mu bàyyee neexuma man. parce que bi muy bàyyi dafa am doole ba léegi Baboy dafa am doole am na ñu mënuñu ko daan. Mhm. Hmm? kan mooy adversaire potentiel Euh, boo xam te ni soit bu mënul ñàkk. Hmm. te bëgg nañ wax dëgg yàlla mu toog. Hmm. parce que tamit dañ koo soxla bëgg nañ mu bëree. mais tey bu fekkee mënul ñàkk. Hmm. tey combat yooyu ban combat nga ko ciy seetlu soit Balla Gaye Modou Lo. Eumeu Sène. Euh, du bëri Lac de Guiers. Tapha ak euh, Gris Bordeaux. ban ngay choisir def ko boo xam te ne bëgg nga mu mu tëjee ko. waaw mën na gëri ak bëri ak Gris Bordeaux pourquoi pas parce que Gris daf ko daanoon. mun na mun na jël mun na jël tafaatin parce que combat tafaatin gis nga nu mu demee tafaa dafa ko daanoon mun na bëri tamit revence am ak Balla Gaye. ok waaw bi ma ci dàqal tey su ma ko doon kii tey euh, revanche am ak Balla neex na. waaw parce que dafa daan Balla te Balla dañ ne dafa def euh, France entraînement yi dafa def des dese foofu ay entraînement yoo xam ne nii foofu moom xam nañ ko. ñooñu moom dañuy pare ay préparateur lañu te comme la gis nañ mu jóge fa ñëw indi doole mu delluwaat fa indi doole moom Bombardier ñu biisaat ko ba xam. Mhm. mais Modou Ama waaw Modou Lo dafa nekk combat boo xam ne kombaa bu doy la muy Pikine ak Parcelles te comme laalante woon nañ mbapat ñoom ñaar xamante nañ mais mbapat ba fekkewuma ko dama dégg ñu ne Modou Lo bëri na ak mbapat mais Modou moo daanoon Ama. mais ñoom ñaar dafa nekk combat boo xam ne combat jànq la combat du siècle la ndax combat boobu nu ko Modou fonk fonk fonk Ama tamit da koy fonk parce que fi mu mën bu yóbbu moo bëri te man dama xam Ama bu baax dama ko arbitré mbapat xam Modou bu baax mu nekk combat boo xam ne bu doy waar lay nekk bu doyee doy waar waa xam nga ñoom bokkuñu lu ñuy bëre xam nga Ama moom euh, ni ñu koy waxati fulaadu la moom fulaadu la day dar day day day toog ci ñaari tànk dox sa kaw moo lool day bëree ay stratégie lay bëree. Mhm. Balla gay Boy Niang. Balla ba moom euh, ñoom ñaar mbër yi duñ fa sag yàggal supporters yi. dañuy bëre mu daanante am mu gaaw. Euh, man su ma doon joxe yi mën naa ne euh, du ma jox kenn favori. parce que ku juum daanu ñaari bërëkat lañ. bëre moom ñoom ñaar ñëpp a ko am. no su ma la nee ki lay coop bëre moom damay juum parce que Boy Niang xam naa ko dafa mën a bëre. Balla Gaye tamit xam naa ko dafa mën a bëre. mën mhm. nga lamb instant waaw situation lamb ni ma ko gisee mooy euh, promoteurs yi promoteurs yi nga xam ne ñoo nekk ci làmb ñuy benn promoteur di bañ di def euh, ñu bañ di def lu ñu mënul parce que boo nekkee promoteur da ngay def loo mën. dañ la def loo mën wax loo mën boo tëddee da ngay nelaw mais bu fekkee def nga loo mënul nga jël combat yu bëree bëri pour nga jox mbër avance day xaw a métti te mbëri yi ku ci nekk tamit bu ñu lay joxati avance nañ lay konteel xaalis jox la xaalis avance mais loolu ci gën a li gën a fekk yàq làmb ji ci la xaw a bokk. Mhm. sponsor yi. waaw sponsor yi loolu la rek mbër yi moom comme euh, euh, promoteurs yi bu ñu déggoo seen biir ñoom bu ñu déggoo seen biir parce que promoteurs yi bu ñu la nee déggoo nañ ci seen biir tamit amul ni ñu war na mel dëggantaan njaay meluñu noonu. mais su fekkoon dañoo suurewu dëggantaan nga xam ne tey bu ñu bu comme ku mel ni Assane Ndiaye boogee combat ambay Diouf ku mel ni euh, Dieye du ko bëgg wala keneen ak keneen ñu bàyyi ba mu dox ko ba mu jeex nga xam ne day taxawal kombaam mais dañuy lëkkante quoi kii day am combat de kii day kii day day waxaale mbër bi jóge fa keneen jaar ci suuf di ko waxaale te loolu day yàq làmb. Mhm. na gisee booy yi ñëw ak euh, est-ce booy yi am na ko ci gis koo xamante ni boo xoolee rek di ne kii benn Mbaye Diouf bi ñëw la. waaw gis naa ko mel ni ci booy yi waa gis naa ko ci. Euh, muy bëre bëre yoo xam ne nii gis naa ko instant bi muy bëre bëre yoo xam ne. bëre yu gaaw lay bëre. muy euh, muy ku mel ni Mama Lamine. Mama Lamine benn. waaw gis naa ko muy bëree bëre yoo xamante ne dama ci gis sama parce que dafa am vitesse su bëre. Mhm. Uh-huh. Mhm. Euh, waaw euh, ku mel ni booy ñaa tamit dafa mën a bëre day bëre parce que dalay daan te doo jàpp. du bëre ci ngéem day bëre ci yaram. Mhm. kooku tamit gis naa ko. Uh-huh. waaw Reug Reug euh, dafa dafa gëm boppam te gars yi tamit bu ñu xool ne ñoo ko doole fi ne dafa am doole fi ne dafa tollu ci lu keeku liñ naan mbër dafa ficceeku foofu la toll moom Reug Reug instant bi mm-hmm. nga ne mook Tapha ñorul. waa mook tax mën a ñorul. Tapha dafa dafa plafond lu def plafonné quoi ci kaw la nekk Reug Reug mu ngi yéeg nag mais yéeg seegul ci Tapha ok. Mhm. kon daal na bëreeg booy na bëreeg gaa yi waaw bari na ñu mu war a bëral bari na. Mhm. kontaan nañ ci yow. waaw wax dëgg yàlla décortiquer ñu wax waxtaan nga ñun ci làmb. Mhm. ak sa disponibilité wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow bu baax a baax. di la ñaanal rek mhm, mhm. sàmm la. Mhm. aar la ci barke Seydina Muhammad parce seetaan. estimé la. te bu ba jamono bi dox. ñu yor micro. pour seet waxtaan ak yow daf ñuy neex. moo tax équipe yëpp. kontaan nañ ci parce que gars yi waa wasaare ñoom ñoo tànn parce que seet euh, Mbaye Diouf te xam naa ne bu ñu déggee waxtaan bi dañuy xam ni carrément ñëw bi moom du ñëw ñëw non non man maa gën a kontaan ci yéen parce que yéen tey vraiment vraiment lii di xëy na ñàkk am relation bi moo moo taxoon xëy na teelul am quoi mais vraiment duma ma mën du leen sant leen xam ne man moom jàpp naa leen ngeen gis ma ngeen ñàkk maa gis ngeen yëg ko ngeen ñàkk koo yëg muy guddi muy bëccëg xes naa leen a jàpp su suma yow Fatima woo nga ma nga ne ma dama bëgg a def ak yow émission ma kontaan ci trop di nuyu ñag Sénégal yëpp di nuyu fi may liggéeyee ñoom Ameth Yaxya maa ngi leen di nuyu di ñoom nuyu ñoom xoos ñi nga xam ne ñoom laa nekkal ñoom waali ñoom pap Gueye xam nga ñoom xalifa ñoom maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp di nuyu ñi nga xamante nag ñoom laa fekk fii ci kër gi muy sama maire bu ñaawul bi moom Fat Fa euh, maire euh, kii maire Thiama maire maire Ngañ tamit maa ngi koy nuyu maa ngi nuyu ñëpp daal bàyyiwuma kenn euh, di jox sama ki nga xamante sama rakk la nag. Mhm. Nafi sànni ci ay quelque kii rek yaa ma gën a xam. waaw ci kattanu yàlla. waaw Baski nekk sëru Mbaye Diouf wax dëgg yàlla sëru mbër naan gars nag <laughs> bu leen kii de bu leen woo Mbaye Diouf naan ko kii de na fi maa ngi lay nuyu. Fatima maa lay fay. Mhm. Euh, nga am frère mbër. muy bëri macha allah avant na sax. ñoom ñii day tax ngay def mais tey sa relation ak moom gis naa ne ñaar complicité bi ngeen am waaw Mbaye Diouf moom sama mag la sama xarit la tamit am sama féete la. lu muy def loo xamante ni tamit waxuma ko. ñu ñu koy ñaanal yàlla tamit ci combat bi en tout cas daal sama xarit la daal. buy mm-hmm. bëri nooy def. stress rek. Mm-hmm. kese nekk fii daal dugg beeg génn beeg yooyu daal. Mm-hmm. xam nga nag sa mbër sa mag suy bëri moom sa fi du toog parce que dóorante metti na. duñ combat bi sax duñ ko sax seetaan parce que suñu fiti du toog mais am nañ ci moom daal confiance. ban combat moo a neex yëpp. yëpp <laughs> moom ak Baye ma moom ak Baye waaw. boobu moom neex na ma trop parce que Baye Mandione mbër la. mbër la man tamit sama fans la dama koy dama koy dama koy seetaan. mais tamit sama mag sama mag su ko daanee contentement la. Mm-hmm. waaw ma kontaan ci trop nag. ndax xam nga <laughs> affaire yooyu. waa à part Mbaye moom sama mbër mooy supporté moom Balla gay la. Balla Gaye waaw ci biir kër gi sax damay xuloog moom nee naa ko soo doon bëreeg Balla Gaye ah te bu yaakaaree bu àndee ma faral Balla Gaye de waaye tamit sama mag la mais Balla Gaye moom dama ko bëgg sama biir xol. ndeysaan kon yow comme seen premier combat ak Balla Gaye boo fekk nag kii gimmi woo tuuti. non boobu xale laa woon. xamoo woon xal miin combat yi comme ni ma koy suivre nii. Mm-hmm. mais tamit bu ñu ko expliqué ah kontaan nañ tamit trop parce que tamit bu ñu demee bu mu bëreek Balla Gaye Balla Gaye champion la ku bëreeg moom tamit champion nga. waaw bas ba léegi ah kii suñu yaay la nekk tamit wax dëgg yàlla maman mbay Diouf fa. après maa ngi lay woo. suñu yaay tamit mu nekk mama Thiam moom it nekk tamit yaay ci Mbaye Diouf ndeysaan bi sonn ci moom loolu ci combat yaay booy maa lay nuyu. maa ngi lay fay. yëkkati micro ngi lay fay. Mhm. maa ngi julli ci yonent bi. Mhm. Eh, Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Mbaye ñu ngi koy ñaanal. Eh, yàlla na ci dugg ci bisimilahi rahmaani rahim mhm. génn ci alhamdulilahi rabil alamina mbay sama doom la nekk nit ku baax ñu bokk nekk ci ri bi ricarno bi tudde na ma fi sax drapeau mbay daal nit ku baax la te ñu ngi koy ñaanal daal fi mu ne nii ah danoo bëgg nag mu demaat ci kanam loolu lañ koy ñaanal mu dem ci kanam moom la ñaanal mbay. suy suy bëri nooy def. rek <laughs> tiit ak yor sama kurus di ñaan. Ah. tiit rek. ban combat xam nga rek combat man presque duma ko seetaan ndax dangay ragal. Ah. damay ragal duma ci seetaan benn <laughs> damay tiit rek. ah yan qualité non mbay sans défaut. dañ koy ñaan yàlla lafal ko cat. waaye sans def. mbay baax na yaatu na bëgg na nit mbay sans def. kontaan nañ ci mbay torop ñu ngi koy ñaanal daal fi ne nii ah yàlla na yàlla may ndam ci kanam li des waaye. merci beaucoup. Euh, waaw kii xam nga ne di sama xarit. Mhm. moom sama xarit la sama lépp la. Mhm. mun naa ne damay taxaw ci lu bari parce que xale la mais xelu mag la yor te it xol bi dara nekku ci xol bi dara nekku ci xol bi dara nekku ci xol bi dara nekku ci euh, sama xarit la sama lépp la euh, maa ngi nuyu ci ñi nga xamante ne tamit mooy sama doom yi sama doom yi maa ngi nuyu bu baax di nuyu sama xarit yi nga xam ne moo nekk Angleterre muy maam góor ak ndoof bi nga xam sama copain ndoof bi nga xam ne mu ngi mu ngi Paris mu ngi Paris di nuyu sama xarit Mor Diouf bi nekk Patersen ak ñi nga xamante ne nii mooy sama waa écrit sama waa écrit parce que sama waa écrit ñoom laa am di nuyu tamit Cheikh Diouf mi nga xamante mooy sama lépp ak Bada Dione ak sama doom yi tamit maa ngi leen nuyu bu baax a baax a baax euh, di bëgg rek sama doomu ndey bi nga xamante ni léegi la ñëw mu mooy doomu mère Thiama la ñu xaw koo kii rek mu kii ci dara quoi. Mhm. moom sama sama doomu ndey la moom tamit sama doomu ndey la lool. Mhm. waaw ma ne ñun moom mooy sunu mbër. mooy sunu mbër sunu mag la sunu xarit la sunu yëpp la bu buñ bëggee làmb rek mbay moo tax ñu bëgg làmb parce que buñ toogeek moom surtout si biti fii ñun ñëpp xam nañ si làmb rek la ñuy waxtaanee mbër la làmb la bëgg mooy métier am loolu rek la xam di ko ñaanal nag peut am na lu bari lu weesu. mais liy dikk tamit yàlla na dàq li jot a weesu. loolu daal laa amoon te parce que dama ni duma ko dégg mukk ñu koy interview ma nekk fi te duma ma si ñëw wax parce que moom sama mag la moo ma yar depuis bi may nekk xale. mais boobu bi muy nekk xale moom la ko yoroon ba ni mu màggee kon kii sama mag la mun naa ni ñoo bokk ndey waaw jaajëf. di nuyu yéen ñëpp. waaw nuyu naa leen di leen jaar. di rafetlu seen teewaay fii ci mbay mi ngeen seet ak ñun muy sunu champion boo xam ne ñun moo ñu moo ñu moo ñu moo bëgg làmb te it ba ñun tàkkusaanam rek lañ lañ bëgg guddi yi bu ñu sañoon rek ci gàttal mbër yi mayaat ko sens ndax ñun dañu namaat làmb ñu namaat làmb te euh, li ñuy li ñuy qualité yi ñu gis ci mbër mën a bari xereñ ak neex tàkkusaan Medina mbay bu daan bëree taksaanu mbay amatul amatul ci àddina moo tax chaque jour dama koy wax chaque jour dama koy wax ma ne ko mbay del del wax ndax gaa yi dégg la dañu namm loolu di ko ñaanal nag di ko ñaanal bu bu bu fekkee ne yàlla dogal na sansam ci làmb des lu bari yàlla na si jot ndax ñun ñëpp ñoo ngi ko koy ñaanal ndax euh, xeebul kenn te mbay ñëpp la bëgg koñ bi boo fi ñëwee sax da nga yaakaar fi la dëkk moo tax lu mu fi soxla du jafe man maay baay faalam te nangu na loolu sama xarit la di leen ziar yéen ñëpp nag. waaw ah, li may tàggatoo mooy kontaan ci yéen rek comme li ma waxoon rek kontaan ci yéen rek comme euh, tamit fi mu toll nii daanaka ci ceppaandaw gi lañ nekk du ma mënul di leen gërëm di gërëm ñi nga xamante ne nii mooy sama rak bu ñaawul bi Nafi maa ngi koy gërëm di gërëm sama di euh, nuyu sama doom yi parce que man awma lu samay doom ñoom laa am te ñoom laa gëm di nuyu sama papa di nuyu sama yaay di la wax ne xëy na émission bi mën naa ne yi ma mës a def yëpp bii moom ma ci dàqal parce que émission bi fi ma ko defee fi laay liggéeyee fi ma ko defee mooy Dakar Plateau mooy bopp Sandaga presque foofu laa màggee presque fi laa defee lépp xam fi bu baax nag nuyu naa ñëpp nag comme nuyu naa sama ñëpp nag daanaka euh, bu guddaatee rek dootul kii quoi ko mm-hmm. l'émission tira sa fin di ko béggee wat bu baax a baax moom Mbaye ah, ko béggee nag moom Nafia ndax ci accueil kontaan nañ ci moom bu baax a baax parce que mbokk ndey moo koy jur kon li may wax rek c'est le sang que nit soo ko bëggee danga koy wonee parce que ñii suñuy frère lañ suñuy lépp la te bokk a metti waaw di leen bu baax a baax te suñ complicité bi ne àdduna noonu la ndax parce que instant bi kenn ku nekk da nga war a mën a jàpp sa mbokk mm-hmm. waaw nag yow jàppal ndax dëgg yàlla mag moom munoo am munoo am ko mag mm-hmm. noonu la olof di waxee ñàkk moom lépp la mooy nag mënoo am ko mag ñu lay bégee bu baax a baax a baax kontaan nañ ci lépp kon dama koy waxee rek à chaque fois l'infatigable Basirou Diouf sama Basirou sama séeréer bu naagis di la bégee bu baax a baax naan la yàlla na sa jàmm yàgg yow dama lay ñaanal rek ah, yàlla na la yàlla defal jàmm loolu rek laa lay ma yàlla bëggee nag dama bàyyee lafal ma ci yàlla lafal ma seytaane ak mm-hmm. cat mm-hmm. mu puus mu fële di béggeewaat nag képp koo xamante ne rek yaa ngi suivre Wassare Lamb mm-hmm. Wassare TV Fatima Kese Wassare Kese nee naa à chaque chaque fois lépp loon bëgg dañ koy dox dañ ciy dox duñ ci hésité fépp ko leen cliqué rek Mbaye Diouf ngeen cliqué ñu ñëw waxtaan ak moom ci làmb mhm. te gëm naa ne di ngeen apprécier mhm. mais euh, bas euh, dafa am koo xamante ni suma doom la suma xarit la muy Papa Dia la Marseillais sama lakkal mhm. di ko bégee bu baax a baax moom ak sama chéri aadama ñaar ak Mara Dia mbay Ciss ah ñoom ñëpp ngañ pata ñoom ñëpp ñu leen di bégee bu baax a baax sama sama waa group boobu noonu nga xam te ni Morja le Messi ñu koy bégee bu baax a baax sama doom yooyu daal tey ñoom laa may émission bi mais nag papa ja moom moom mooy capitaine bi la marché sama lakkal sonal nga ma lool émission bi yaa ko moom bégee la sama doomu xol bi bégee naa la bu wér a wér mais bas dafa mat koo xamante ni da jàpp si combat bi nekk ba Maroc muy ma Mademba di ko bégee bu baax a baax suma frère boobu noonu naan la yàlla na sa jàmm yàgg parce que nee naa la defal nga ma loo xamante ni mënu ma la koo faya di ko bégee moom Sam mbay mi ma booleel nga xamante ni moom moo ma war a kii sama yëre bébé yi sama turandoo bi nga xamante ni moom laa war a yóbbul valise mais madame bi kontaan naa ak Seydina Mohamed saa mag sama xarit dañ ciy jàpp bu baax a baax di ma conseiller bëgg ma te yàlla tax yàlla na sa jàmm yàgg ak waa Maroc yëpp ah bégee naa la frère kontaan ci yow ak waa Wassare Yamb lépp Basiru kese